Chérif Abdourahmane Fall Tilala ñun ba ñuy ndaw lañu la ñu jël uuf ñu def ñu kon ay doomam tey muy làmp muy Baye tubaa muy laay muy Aziz Fall ñëpp ñoo yarandoo màggandoo li mu daan yéene doomam la ñuy la ñuy yéene saa yu ma musaa ñëw ne quoi ah, sëñ bi am naa chantier lan la may njëkk a wax jëlal avance dem jox sa yaay loolu la may njëkk wax saa yu ma amee chantier jëlal avance dem jox sa yaay kaddu gu mu saa mu ñëwee kaddu mu fonko julli fonko wor fonko say waju bul dugg ci lo xamne nit bu la bu dina la xeeb wala bul dugg ci lo xamne man man buñ ma wowe wax mako na am gatché nee tay ñun ñak nañ waaye ñu dañuy sante yalla xamne borom bi moo ñu ko joxon inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ci yalla lañu joggé te ci yalla lañu dellu waw julit lañu ay talibé serigne touba lañu buñ déggee naqar bi te ñun ñëpp ñoo ko bokk képp kuy jullit rek am nga ci wàll moo taxoon ñu ñëw teew si fii rek bokk ñoom naqar bi. ku baax ku tedd faal yaaram ku baax wax dëgg yàlla dama doon ñëw ci cantam yi chaque année di ko teewe di ñaan yàlla suñu borom tabal ko ci àjjana yu gën a kawe ci barke maam Cheikh Fall tey moom wax dëgg yàlla tey ñëpp am naqar waaye santaat Serigne Touba di sant yàlla rek di sant yàlla du julli ci yonent bi. waaw di santaat yàlla ndax dafa am ku fi jóge muy Chérif Abdourahmane Fall Tilala la muy koo xam ne ñun ñi suñu baay la suñu baay la ci kanamam lañ juddoo ci kanamam lañ yaroo mu nekk koo xam ne nii képp kuy doomu Grand Dakar doomu ñaari tali marqué na sa enfance mu jóge fi nag tey jii ci li ñu wax d'après information yi ñu am ñu ne moom moo ci génn àdduna ak suñu baay bu fay ak soxnaam mu nekk loo xam ne ni naqar la tiis la ci Sénégal naqar la tiis la ci Grand Dakar mais nag dañ koy sant yàlla parce que fii kenn du fi jóge aduna benn certitude la am muy dee benn certitude mu nekk ci àdduna muy dee seule la mort est certes nit ku nekk di nga dee ñun ñëpp dañuy dee xamuñu kañ la xamuñu nan la moo tax saa yoo déggee dee rek di nga am lu jóge ci yow mais dañ koy sant yàlla suñu borom gën a soñaat suñu bopp ñu gën a teguwaat ci yoonu siraatal mustaqiim gën a jaamuwaat yàlla suñu borom ndax jaamu yàlla rek moo fi des. lii moom du jaas du jaas mu doon dem màggalu poroxaan yàlla suñu borom moom leen ci yoon bi loolu ak cant la waaw dañ doon dem màggalu poroxaan màggalu soxna jaara Buso yàlla moom leen ci yoon bi dañuy ñaan yàlla ci barke soxna jaara Buso mi nga xam ne moo leen taxoon na jóg yàlla xaare leen àjjana ñoom ñëpp ci barke Seydina Mohamed. bettel gu rëy kenn kenn xalaatul lii ma ne wax dëgg yàlla lu ma bett la te kaw la ma jële mbetteel gu rëy rëy rëy ak naqaru rëy ndax damaa dem gël tàppe doon set sam benn waay léegi ma dem foofu ma dëgg ñuy ñuy lum lamee lii ak lii ma taat sam portable gis ko ci net bi ma gën a yéemu ci yàlla waaye day naa la xamal nit ku baax la nit ku baax ma ci liggéey yi xam naa ni sëñ Touba dina ko teeru moom te fan ko fam jëm nii yoon yoonu murit perte bu kilifa gu mag moo ci liggéey ci yoonu axlu bi waxuma la ak murid gi sax mais naar yeeg adduna bépp daal Sénégal gépp ñoo ñàkk loolu yéen nag ñoo ngi leen di jaaraamal yéen ban seen dakaar Dakar ak fii kon nag tamit yéen it yàlla leen defal taw féex waaye daal loo ci mënta yem ñun suñu xol daal moo nekk ci loo xam ne doo xam xamuñu sax lu ñuy wax ndax doonoo jaxasoo